Yaram Art Events le 26 mais ci arène nationale hommage à Double Less papay Balla numéro 2 papay Sa ki def ci lamb lu ne moom la waa Yaram Art di sargal ci diggante Gris 2 bu Fass ak doomu dangu bu Songan Gueye mu war a nekk combat jàmbar waaye combat poids waaye mbokk yi ci bës boobu Jackson numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak Ñagas numéro 2 Ibo jàkkaarloo fa ak Réparé Benteñe dina fa jàkkaarloo ak Lo Karim Yaaxam bu bawoon dina fa jàkkaarloo ak Confiance Petit Baye Fall jàkkaarloo fa ak Réew mi Reuz dina fa jàkkaarloo ak Caatu Faas Përk jàkkaarloo fa ak Ada Faas numéro 2 Petit Modou bu benn barak dina fa jàkkaarloo ak Njaga bu Faas benn réparé jàkkaarloo fa ak Papa Yade mbokk loolu moo war am ci bésu le 26 mai ci arène nationale ñu ànd ci ak Yaram Art Events acca salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV ginnaaw ba ñu leen nuyoo rek leen ziar di am mbégte rek ak contentement di ànd ak yéen saa si ay programme Lutte TV tey nag ñu ngi fii Ndangaan Samb mu am nag vraiment benn séance de bu mag mag a bu fi am boo xamante ni tey Laye Ndangaan ne ñu naan ko Laye Ndiomboor nekk un ancien champion nekk ancienne gloire boo xamante ni tey si localité bi la dëkk moo ko organisé tuddee ko nag ah Modou Lo waaye nag vraiment dañ gis tey Modou ñëw gars tertu ko ah, le maire de la commune génn nga xam ne ni tey moom mooy Karim Sène man moom l'homme social laa koy woowee ñëw génne teeru Modou ñëw aussi accompagner ki nga xamante ni tey moo di frère am di Laye Ndiomboor waaye avant rek moom ah ko monsieur le maire maa lay nuyu bu baax a baax baax di la euh, la jox sa wàccuwaay Euh, di kontaan lool ci yow ci wax dëgg yàlla li ngay def ci askanu làmb yi làmb yi ak aussi sa xarañte euh, ba pare ak aussi sa yaruwer sa yarute ndax wax dëgg ku baax nga bi ma lay xam boobu xaw ma ne du nga dugg ci lii waaye ba nga ci duggee itam comportement ba nga yoroon euh, ci tey ak teg moom nga duggee ci lii di ma lay ma ngi lay ñaanal nag franchement euh, yokkute am ci li ngay def. en tant que maire tey mën nañ ne tey Karim Sène bokk na ci maire yi ëpp liñ leen di ne li diggante Ndios moon Fimela ba Joal mënoo def weer te gisoo làmb bu ñu parrainé ah, monsieur le maire Karim Sène parrainage yooyu noonu lan la te gis localité parce que non seulement sport la waaye culture la waaye aussi tourisme la te ku ne Fimela Ndangaan ne zone touristique. waaw looloo taxoon man avant parce que yàlla def na je suis le dernier président de la communauté rurale de Fimela nekkaat aussi le premier maire yàlla def na maa ngi ci sama ñetteelu mandat mais bi ma nekkee président communauté rurale d'abord euh, gisoon naa ne Fimela bu ñu teg lamb ay saaku lañ doon wërale ma gis na lii warul mun a nekk parce que nag ak lamb ak euh, des fois insécurité bu fay nekk def ko fu am sécurité moo gën. da doon gis ñu warala ay sàkku des fois nga gis ñoo xam ne dañuy bëgg a seetaan amuñu paas ñu ñëw jël ay lañset xotti sàkku yi wala ñu bënn ci tuuti di seetaan loolu yëpp ma gis ne àdduna euh, euh, buy dox dañoo war a dox ànd ak ñoom moom moo tax ma njëkk a def arène de lutte à Fimela ko def ci guichet euh, jo ci tirbine def ci leneen li ci war yëpp boo boo ko duggee arène fibla sa xol day sedd euh, ma jóge foofu aussi def ko ci yeneen dëkk euh, yoo xamante ne ci biir commune bi la ne ba am na arène bu ñu ma tuddee sax campement arène de Karim Sène ndangaan campement waa may def ay turbine aussi ci place publique yi nga xam ne dañuy fay organiser ay lamb te mënoo leen ko clôturer ma door ma def la ma defal leen ay turbine yu mucc ayib pour que aussi euh, ñuy aaral lamb ji nga xam te ne moom moo tax ñu fi Euh, waaw loolu daal euh, euh, yoon la ba ma ko defee itam gis naa aussi ay dëkk yoo xam ne organiser wu nañ aussi gis na lii lu rafet la comme Ndangaan Samb seen arène ba ñoom ñoo ko clôturer seen bopp ma ñëw def ci tirbine bu mag a mag jàppale leen ci def naa sax ay lampadaire fi mu toll nii ci ñu sax arène bi ci ginnaaw pour que lamb ci su su lamb ji mun a am emple bu muy am wax dëgg am sécurité boo demee aaranu fi mu laay itam dugal naa fa ay lampadaire loolu yëpp pour sécurité lamb yi ndax lamb lañu am. macha allah am na solo tey nag ngeen am bés bu mag tey le roi des arènes Modou Lo loolu ban ban ban ban ban sentiment moo la animé tey mu nekk le roi des arènes tey mën nañ tey le lutteur le plus important ñëw si sa commune tey ngeen gis say waxtaan saafonte noo ko gisee. mbégte ndax Modou avant muy ñëw wa wootante nañ téléphone waxtaan euh, mu nekk ku baax. laay mi nga xam ne moo organisé bés bi boole ma ci bés bi nekk sama booy nekk sama mbër famille yëpp bëgg ma moom itam mu bëgg ma bay jeex te nëbbatuwu ci euh, may nekk politicien laay ba ma koy xam boobu euh, yàgg na waa Ndangaan samb fa mu nekk ñoom ñëpp samay wole lañ laay nekk idole nekk koo xam ne li mu def fii ci zone bi benn benn mbër defu ko fi du muy jël euh, drapeau chef de l'état à Kaolack boobu boobu temps daanaka mbër bu mu tasal rek def na la ko lay ak taayam mësul ragal bokk voilà ci la xamante sax xam naa peut-être certainement ak ñoom Modou Lo ak ñooñu ba kolora dugg seen diggante yàlla def itam Modou itam dama ko bëggal saa bopp voilà gën naa ko bëgg it ndax lay ndax ragal fete day xañu wërsëg Euh, loolu aussi euh, mu nekk aussi mbor mu am discipline Modou Lo euh, li mu li mu nekk jomb ko li mu am jomb ko parce que moom du kuy glorifié wu du fëgg danam ne man la du fëgg danam ne lii waaw même boo boo xoolee ci face à yi da ngay xam ne il est toujours posé xam na li muy tontu des fois mu wax ay waxu caxabax ci waxu mbër rek mais nit la nit kese la ba pare il est looloo looloo tax tey bés bii tey euh, dama bàyyi lépp xaar moo Lo mu ñëw ma dem gàttandu ko afim la ànd si ak moom ba ndanga ndangankam ma ñu dugg ci gaal yi def suñ cosaan ñaanal ko def nañuy def bu ñu bu ñu bu ñu tertu nit euh, loolu lañ ko defal tey wàcce ko ndangaan samb mu war a fas yéene tey nag euh, jàkkaarloog population ndangaan samb multiplier ndangaan samb par zéro lamb ji euh, bañ annoncé ne Modou Lo day ñëw rek vendredi samedi dafa fees del tey nag euh, euh, di ngeen gis ay nit ba yaakaar ne non non c'est pas polémique nag am Modou Lo ñi ñu naan reconnaître duñ ko comme roi des arènes ñi naan depuis maa ngi reconnaître ñu roi mais ku daan roi roi nga looy wax ci loolu noonu Modou Lo mooy roi wala du roi. ñooñu dañu wax lu leen neex rek moom ba mu ba mu jëlee trône bi ba léegi kan moo ko daane voilà tey ku ko daan ñaanu ma ko yàlla mais moom mooy nekk roi te du doon léegi ñu yàlla moo du loo joxeegum la ngay hmm? non non non ñaanuñ ko yàlla. da nga mu bëri ngaat ba ci kanam. mu bëri ngaat ba ci kanam a kanam. Hmm. parce que am na capacité bi am na jom bi am na fit bi te aussi euh, yàlla day ànd ak koo xamante ne nii kuy oyof la xam nga boo oyofee yàlla moo lay yëkkati. moo du dafa oyof Modou dafa ànd ak teg tekaaral voilà moo tax wax dëgg yàlla ñëpp a ko sopp gis nga tey bi mu génnee biir film la wax dëgg yàlla fu mu romb rek nga ne déedéet c'est pas possible voilà en tout cas kontaan naa ci moom lool di ko ñaanal aussi euh, digganteem ak ak Laye Ndiomboor muy euh, Ablaye mi nga xam ne suñu laay la yàlla na yokku ba bu bu kenn dugg seen diggante ndax Laye itam ku baax la ku fonk Modou Lo la te Modou Lo itam jàng naa ci moom ba xam ne ku fonk ablaay la. man tamit ku la bëgg laa ku la fonk la ndax ki ñu boole ah muy sama papa Ablaye Ndour nga xamante ne yaakaar naa ne mënuñu ko séddoo. waaw mooy li ma wax rek wax naa sànq ne ba lay xam yàgg na ki tax ma xam la mooy Ablaye Ndour ñu koy oyee dage président de la République moom euh, ci moom lay roy lu bari ndax Macky sal moo ñu boole ñun ñaar euh, Macky Sall a tax ma xam ko mais Ablaye Ndour daf ma mos a yërëm def ma mos a yërëm bi may politique mu nekk dage nekk fa mu ne du doon xaar sax bu ma ko xoolee mu xool ma rek xam da lay moo lan mooy soxla Karim wallaahi bu ma ko xoolee nii rek nuyu ko rek xam na lan mooy sama soxla ñu mel noonu nag euh, ñoom ñoo ŋànkoon APR teye ko teye bu mucc ayib à côté du président Macky Sall liggéey ci liggéey bu mu mucc ayib euh, fidèle gëm li mu gëm euh, ba tey dara yàqul diggante bi man de wax dëgg yàlla Ablaye Ndour mënu ma ko fay yàlla laa ko bàyyi yàlla na ko yàlla fay parce que nag def na ci man lu bëree bëri bëri bëri te lépp lu mu doon def fekk man itam ak lépp lu mu doon jàpp ci man euh, gis naa gis naa résultat yi te sagoo Macky sal moo taxoon mu koy def ndax ku moom dafa nekkoon nit koo xam ne na fonk Macky Sall wala nga bëgg ko rek moom bëgg na la. kontaan naa ci mel ko si liggéey Lutte TV tey ci làmb. sa liggéey yow zéro faute Lutte TV toj na fi Lutte TV tey moom la ñëpp di seetaan euh, te loolu lu am solo la li tax aussi ñi ci di la seetaan mooy euh, da nga am réserve ci li ngay def euh, rapporteur làmb ak journaliste toujours da ngeen di war a refléter li nga xam ne mooy yokk jàmm mooy yokk aussi euh, euh, teraanga ci nit ñi ndax des fois euh, ngeen interroger nit mu mu déraper mu wax lu mu wax mais kenn du ko gis ci yéen da ngeen koy fomp dindi ko te loolu mooy yoon te yow image yooyu ngay def te loolu nit ñi dañ koy wax foo nekkul et ça c'est important ah ngay def loo xam ne à chaque fois nit ñi dañuy ne vraiment lii li muy def rafet na c'est le cas de. booy boobu dëkk Djilass aussi il fait la même chose que toi Ndindi. Lamine TV ñoom ñëpp samay booy lañu. ñoom ñëpp samay samay booy lañu. ñoom ñëpp samay booy lañu ndax ñoom seen yi ñoom lëm la ñoom Zoro booy Palmarin bi ak booy Djilor bi ñoom Zambro ñoom ñëpp samay booy lañu. man dinaa dem ba ay temps sax ñii ci dañ may xas na ma li muy def ci lamb yi dafa bari miir maire nangam mais kii kii tëgg lamb ci ci lamb lay gisee boppam kon da nga koy fekk ci la la la muy gis sa boo nekkee mais da nga war a tëdd tëdd njaaxaanaay bul xool ci rétroviseur bul déglu nit ñi la ñuy wax ah ndem la may joxe wala la may jox nit ñi bu même bu fekkee dama koy ñaan ci nit mu jàppale ma ñoom sa yoon na ci parce que ma ko te lamb nun man ma je vois mal tey ku nekk maire wala nga nekk kilifa dinaan lamb euh, ah du ma ko pare ne loolu waxu dof la. waxu dof la ñun ñu cosaanoo lamb xam lamb ah, am suñ cosaan xam lamb li ñuy liggéey ci bi ki duñ ko wax mais képp ku ko wax rek c'est parce que xamoo lamb c'est parce que xamoo fi ngay teg sa tànk mais boo xamoon fi ngay teg sa tànk wala nga xam aada séeréer xam aada lamb xam lan mooy lamb doo wax loolu waaw. maa ngi lay bëgg di bëgg nag sa sa sa war waaw ñoom ñëpp moom ñoom ñëpp dañ laa fan nag <laughs> yow itam da nga bëri ay fans ci zone bi quoi fan euh, fans yoo xamante ne aussi li ngay def moo tax ñu faa la li ngay dund moo tax ñu respecté la maa maa ngi lay ñaanal wax dëgg yàlla euh, yàlla may la yokkute euh, ci li ngay def yàlla aar la d'abord may la wër parce que boo wëree yàlla si yàlla bi nga xam ne dara teew ko aar la rek ñàkkoo dara te yow incha allah ca kaw ca kanam rek. ca kaw ca kanam rek merci beaucoup. ayca noonu la demee ah moo nekkoon le maire ah, de la commune de Fimela muy Karim Sène nekk nag suñu papa suñu xarit suñu lépp du ko ñaan rek gudd fan yàlla gën a gën a woyofal yéen bi moom nag gars yi dañu ko wóolu moo tax à chaque fois moom waaw nee leen moom mooy borom fii di jox gars yi rendez-vous ba beneen yoon incha allahu rabi jërë ngeen jëf. Yaram Art Events le mais ci arène nationale hommage à Double Less papay Balla numéro 2 papay Sa ki def ci lamb lu ne moom la waa Yaram Art di sargal ci diggante Gris 2 bu Fass ak doomu dangu bu Songan Gueye mu war a nekk combat jàmbaar waaye combat poids waaye mbokk yi ci bés boobu Jackson numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak ñagas numéro 2 Ibo jàkkaarloo fa ak réparé Benteñe dina fa jàkkaarloo ak Lo Karim Yaaxam bu Bawol dina fa jàkkaarloo ak confiance Petit Baye Fall jàkkaarloo fa ak réew mi dina fa jàkkaarloo ak caatu Fass Perk jàkkaarloo fa ak Ada Fass numéro 2 Petit Modou Lo bu benn barak dina fa jàkkaarloo ak Njaga bu Fass benn réparé jàkkaarloo fa ak Papa Yada mbokk yi loolu moo war a am ci bésu le 26 ci arène national ñu ànd ci ak Yaram Art Events